ak yi du ma ci guddal ak ñaan yi dama koy sof rek ci kàddu yi suñu ñaari bokk yu baax yi ñu ngi jiitu euh, waxee jëmale ko ci ñëpp euh, xam naa tomb bi bu am solo la donte waxtu wi xëy na nuru na luy xat ndax euh, waxtu timis mi ngi dëgmal si waaye lu ci xaj rek ñu def ko ci li ci des ñu eggalee ko yéene mbokk li ñu sànq woon sànq woon ci ñun mooy ñu wax maandu solo suñu am ak ni mu doonee lu mënta ñàkk ngir jàmm am ci penc bi muy kàddu gu dëggu gu wér bu ama am solo waaye bu laaj tamit ñu jëmmal ko ci sunu dund kenn réeréwul tolluwaay bi nga xamante ne fu mu ne moom la sunu réew mi toll muy muy muy tolluwaay boo xamante ni buñ ko saytuwut bu baax réew mi mën na fee dox yàlla tere yàq bu faw waaye gun ko saytoo mën na fee jógee dem ba faaw ay réew toll na ci sàggane ko doxe fa yàq bu faaw réew toll na ci nekkoon ak ndànd fay-fay saytu ko saytu bu baax suqali ko dem ba faaw lépp mi ngi aju ci ci ñun penc mi naka lañ koy saytoo xam ngeen suñu borom bi mu bindee doomu aadama wàcce ko ci kaw suuf da ko jox yi munta ñàkk yépp waaye nag joxaale ko xel ni ko nag lu ma la toggal yàkkal la leer la kon mi ngi nii li ca des yaa koy def wax ni lépp lu nekk ci asamaan ak suuf euh, yow doomu aadama lañ ko defal waaye nag foofu ci dafa laaj xel wa saxara lakum ma fi samawati wa ma fi l ard jamian jamian minhu inna fi dalika la ayatin li qawmin yatafakkarun alam taraw anna allaha saxara lakum ma fi samawati wa ma fi l ard wa asbaa aleykum niamahu zahiratan wa batina lépp euh, lii xéewal dax nañ leen la ko euh, tàggatal nañ la ko léegi nag li ci des nag yow seet noo ci jariñoo yàlla dogal na nag suñu réew ci xéewal yooyu yàlla may nañu ay xéewal yoo xamante ni yu jafe la may nañu ak dal ci réew mi jàmm ak salaam jàmm jooju mu doon garab bu laaj bi di ko suuxat jamono bu nekk waaye tamit may nañu ay xéewal ñu feeñ ci suñu suuf feeñ ci suñuy géej muy pétrole ak gaas muy loo xamante ni tamit dafay yoraale jàngoroy boppam buñ ko saytuwut bu baax boo wuttuwut mu eh, réew mi dana salfaañi kon pétrole boobu ak gaz boobu nga xam ne fii ak diir bu néew bu ci yàlla àndee danañ ko tàmbali di ko jëfandikoo dafa laaj waajtaay waajtaay ci xel yi ak waajtaay ci ay taxawaay waaye réew mi tamit fii ak weer yu néew lu matul ñetti weer danañ salaat kilifteef bu mag yi mooy danañ tànn njiitu réew tànn njiitu réew nag réew toll na fa xëccoo beeg ŋaayoo bi ak ñàkk ñàkk dëggu gi dox fa dugal réew mi ci guuta goo xam ne danañ ci nekkaat ay at balaa génn kon bu doon ñaar yooyu rek doy na sëkk ñu gën a defaraat jotaay yi gën a saytuwaat liñ bokk ci loolu mënut a ñàkk loolu nag dafay bu fekkee ne kon waxtu woowu ci lañ tool ngeen tànn tomb bu mel nii duñ man lu dul ndokkeel leen ci sant leen ci ca xam ne tànn ngeen tomb bu pénc mi aajowoo ndekam waxtu bi bëriwul nag incha allah ci ñetti tomb rek lañ koy wax danañ fàttali rek lan mooy maandu fàttali lan mooy solo sum am fàttali tamit naka la nekk lu munta ñàkk ngir jàmm ji ñu suñu borom defal mu doon lu mën a wëy maandu moom duñ ci yàgg lu bari weesuwul lu dul rek bañ a ëppal bañ a ëppal ci dara di doomu yam fi nga war a yam di def li nga war a def di wax li nga war a def waxtu bi nga ko war a def rek ñi ngi ko war a def rek barab bi nga ko war a def te bañ caa ëppal weesuwul weesuwul loolu bu mooy safaanu tooñ ci bépp anam na mooy safaanu tooñ ci bépp anam muy lu ama muy loo xamante ni tamit amul benn pénc mun koy tuddee ñu ne la déedéet foo ko mën a tudde aw askan woo ko mën a tuddee xel yi da koy nangu euh, ba noppi ñu bëgg ko mën nañoo am gàllankoor nag ci jëmmal gi waaye amul benn askan benn pénc kenn nit koy wax maanu mu bañ mu doon loo xamante tamit bu amee mooy tax sañ-sañ yi yàlla jox nit yi muy ay liberté dignité bi mu ko jox muy karaamaam te yàlla te nit ñëpp judduwaale ko ñëpp yam ci ñu mën koo jëmmal ci dund bi kenn ku ne dund euh, dignité boobu kenn ku ne tamit ay sañ-sañam yu sàmmanteeg moom waaye maandu moom mooy keno bi nga xamante ne mooy tax nit nit yiwe li ñuy wax taxador civilisation munta am ca maandu amu fi justice amul ndax bu fa amul rek dundu mala moo fay des te loolu danañ ci dikkaat kon mu doon loo xamante ne dafa laaj jikko dafa laal jikko yi waaye laal tamit nite gi dafa laal jikko yi laal nite gi ku nitewul doo maandu ku amul jikko ju rafet doo maandu solo sum am nag tax na bàyyiwuñ kenn ku ne di ko dunde ni mu ko bëggee waaye dañ koo teg ci ay loxo loxoy nit muy li ñu tudde la justice al qada tànn ay nit ci réew mi ak ñi leen di gàppale ñi leen yéen yéen ñuy saytu maandu bi muy keno bu mag a mag a boo xamante ni ci la réew mi taxaw moo ki yeneen keno keno boo xamante ni mooy jëmmal moom bu réew mi moom boppam bu nasaxee réew mi nasax bu taxawee def liggéeyam ni mu waree réew mi tege ci yoon bi mu war a tege jàmmu am nit ñi ñu aar leen aar seeni sañ-sañ aar seeni alal su dul loolu nag yooyu yu ñu wax yëpp benn du ci am looloo tax suñ borom daal di koy santaane ci anam boo xamante ni tënku ko lëkkaliwu koog ngëm yàlla lëkkaliwu koog leneen waaye daf koo boyal noonu rek inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan yàlla bu ngi leen di digal ngeen maandu cay rafetal muy ñaari baat yoo xamante ni dañuy mottalante yu ama am solo yoo xam ne mënoo wax ni fii la tàmbalee fii la yem ñenn ñu nekk dañ cay dund lañ ca mën a dund waaye maandu wul te mënta weesu maandu yi baax mën nañoo gënante waaye lu baax baax li bon mën nañoo yéesante waaye lu bon bon na kon baax am ak bon rafetal yàlla nag da a lënkale ñoom ñaari ñooñu ci biir aaya bii tamit yàlla bim mu santaanee maandu ak rafetal dafa terewaale lépp lu ñaawteef ak tolluwaay bu mën a toll wa yanha anil fahshaai wal munkari wal bagyi yaizukum laallakum tazakkarun kon aaya bi aaya bu matale la bu yaatu la boo xamante ni nit ñépp la làmboo kenn ku ne ak wàcc waayam penc mu nekk ak aw daywaam waaye ñépp la laal amul kenn ku ci dugg mu laal liñ mën a séddale laal ko di ko gis di ko mën koo séddale ay moomeel waaye tamit laal loo xam ne nit ñee ko moom ca kenn mënu koo laal kenn mënu koo gis muy sañ-sañ yi liberté yi loolu tamit ca côté boobu kon muy jaanib maanawi ak jaanib maddi yi faw maandu am ci looloo tax ku mel ne Ibnu Mas'ud daal ne aaya bii day mboolem aaya yi yàlla di wax aw yiw ak safaanu yiw bii moo ci gën a mat moo ci gën a yaatu ndax da koo boyal waxut ni fii lay tàmbalee waxut ni fii lay yem muy lu mënta ñàkk nag ndax diine ko santaane mboolem diine yi jóge asamaan yëpp ak xel mu rafet yi yëpp xel yu rafet yëpp nangu nañ waaye mu doon lu mënta ñàkk ci biir askan wi tamit ndax dafa bari luñ bokk te loo xamante ni kenn mënu koo séddale te kenn ku ne war na caa am walla tahada tumma asaaba fa lahu ajraani bu góorgóorloo rafetal yéeneem fas yéene feeñal dëgg ci waxtoom ci barabam yàlla da koy jox ñaari tiyaaba waaye su ko defee ba noppi far juum ci àtt bi du tey yàlla dana ko bindal tiyaaba ndax yéene ja rafetoon na ca def na képp laay kàttanam ngir feeñal yéene waaye yàlla yemul ci yooyu lislaam yemul ci yooyu daf ne képp koo xamante ne dafa bañ tooñaanga bañ faat bakkanam moo xam da doon aar jëmmam wala alalam walla njabootam euh, bu boobaa wala diineem bu boobaa dañ koy jàppee shahid te xam nañ shahid maanaam pour daanu ci toolu xare xam nañ wàccuwaayam ci lislaam looloo tax Seydina Omar wax ni fa innal xaqa ci discours bu gudd la bu mu doon waxat ay magistrat ci jamonoom di leen ci dénk bokk na ci lim leen waxoon mu ne leen fa inna alxaqa fi mawaadin alxaqi yuazimu llahu bihi al ajra wa yuxsinu bi azikra feeñal dëgg ci waxtoom ci barabam attekat bu ko def attekat bu ko def yàlla dana la fay tiyaaba ju rëy te dana la may wayu ëllëg bu rafet kon loolu dañ ciy dégg ne tamit safaan bi képp ku sooxeloo ab atte ci topp bakkan topp àdduna wala beneen sabab tax yëmoo ci ni sa sa way dana ñaaw waaye yàlla dana la ci bindal bàkkaar bu rëye rëy rëy loolu nag ci matuwaay yooyu tamit tax yàlla tamit def seede mu nekk warteef saa boo xamante ni jamono yi seede jot na ku war a seede ku nekk na ko seede te yàlla tax wa aqimu shahadata lillah ne këpp ku nëbbu seede ci waxtu buñ ko soxlaa nga nëbbu ko na la leer ne def nga bàkkaar bu rëy te na la leer ne tamit yàlla xam ne li ngay def te dana la ko topp wa in wa man yaktum wala taktumu shahadata wa man yaktumha fa innahu aathimun qalbuhu wallahu bima taamaluuna alim daal di wax ne nag mbir màngoo kum neex na nga feeñal kum neex na nga nëbb waaye lu ci waay def na ko leer na danaa ko topp wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuxfuuhu yuxaasibkumullah kon euh, atte lu ama am solo la lu gaaw a yóbbu nit ki àjjana la waaye lu gaaw a yóbbu nit ki sawara la loolu tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax yi ñett lañ ñaar ñi sawara lañ jëm kenn ki àjjana la daal di wax lu tax kii atte ci réer ñàkk a xam di sànq doomu aadama yeeg seen i sañ-sañ ak seen i alal ak kii atte ci topp bakkan ak topp bànneex ak parparlantoo euh, ñaar ñoom ñu sawara lañ jëm ki atte ci dëgg ca rafetal ko ca di ko def te yàlla tax moom moom mooy dem àjjana kon bu doon le deux tiers deux tiers yëpp sawara lañ jëm te loolu lu doy waar la loo xamante ni lu mat a xam la kon l'islam dafa xaj attekat yi euh, ci lépp lu mën a naxal seen xel lépp lu mën a tax atte bi sooxewu da koo tere euh, di ko ci topp doomu aadama moo xam wax dëgg la moo xam ger la moo xam wuruj la moo xam wor la moo xam seede lu du dëgg la ngir intérêt moo xam ñàkk sago ca mbañal war ko waral ko walla mer walla keñaan wala wala bëggeel wala ragal sax yooyu yëpp bu nëxalee xelu àttekat bi ba tax mu àtte lu du dëgg yàlla dana ko topp àllaaxira yonent bi daal wax ne képp koo xamante ni am na sañ-sañu tànn ay nit di leen teg ci ay post mu di ko tànn ay nit ngir farfarlantoo na ko leer na yàlla rëbb na ko te duutu nangu jën jëfam ba keroog mu koy dugal sawara man wuliya min amril muslimina shay'an fa amara alayhim ahadan muhaabatan farfarlantoo moo xam diine ko waral wala tariqa wala askan wala parti politique lu mu ci man di doon ku war wax dëgg ci barabam ci waxtoom ci waxoo dëgg ngir farfarlantoo yàlla nee na danaa la soreel sama yërmande ci duutuma nangu sa benn jëf ci lu dul ma dugal la sawra fa alayhi lahnatullahi la yaqbalu minhu sarfan wala adlan xatta yudxilahu jahannam kon yu ama am solo la yoo xamante ni dañoo tudd nag magistrat yi ndax ñoo gën a kawe waaye borom njaboot ci njaboot bi saa bu waree jël atteb dëgg na ko jël kilifa diine ci ñamu jiite bu waree jël atteb atte boo nee jëlub dogal na ko jël ci teg ko ci euh, dëgg kenn ku ci nekk tolluwaay boo war a toll te ña nga yàlla ña boo waree jëlub dogal na ci seet yàlla na ci seet sa àqulaay ak sa tëraayu bàmmeel dogal boo jël budul loolu ngir yeneen nattuwaay ngir yeneen intérêt bu ëllëgee yàlla dana la ko toll ca sawara yàlla tere mooy mooy moo ci gë moo ci yées looloo tax Seydina Omar saa bu masaa tànn ay attekat da leen di dégg bokkoon na lim lim leen bokkoon na ci lim leen waxoon na ngeen moytandiku di toog ci di atte ci jamono yi nga xam ne seen xel nekku fi wa iyaakum wal xalaqa wa dajara wa taadibi al xusuumi wa tanakkuri inda al xusuumaat ak yeneen yu bare bare yoo xam ne wax na ak yeneen yu tudd yi dafay béral ne atte lu ama am solo la ci pénc mooy tax pénc jëm kanam di am jàmm wala mu dellu ginnaaw nekk ci fitna ba faw loolu nag daf ñuy yóbbu ci ñetteelu tomb bi te mooy ni maandu li nga xam ne mënta ñàkk ngir jàmm am ci réew mi li nga xam ne kenn du ci sikk sàkk mooy ni bokk na ci li tax déggoo am jàppante ak dimbalante di am bokk na ci li koy waral mooy wóolante ci jëflante bi te wóolante ngir mu am maandu dafay am képp kuy jëflante ak yow te doxut doxeenoo ku maandu bu sa kóolute ci moom dana des dana des ca aw am pénc buñ demee ba kóolute ga des bu boobaa musiba wàlli yàlla si na fi kon dafa war dafa war doon loo xamante ni benn nattuwaay rek lañ ci seet mooy nit ñëpp ñoo ci yam buñ ci xool pas-pas buñ ci xool aw askan buñ ci xool am ak ñàkk buñ ci xool wàccuwaay ci biir euh, euh, réew mi saa bu dëgg jotee jëlal dëgg ci ànd ak moom te yàlla tax leneen loo ci nattuwaay beneen boo ci jël eh, yàlla dala koy topp kon loolu principe la ci boo xamante ni ñëpp war nañ koo xam looloo tax nag yàlla bi mu diglee ñu maandu dafa digle waale ñu rafetal al ihsan ihsan nag moo gën a yaatu maandu mooy rafetal ci lépp ci kàddu ci jëflante ci lépp lépp lu baax looy def nga rafetal kullu amalin tayibin fi muhit alxayaati kulliha fi alaqaati alabdi bi rabbihi lépp ci relation yi moo xam ci njaboot gi la wala ci penc mi la wala sa digg sa borom lenn lu mu ci nekk rafetal am na faw yoon rafetal nag bu ko yàlla tuddee fii dafa bëgg ñu bañ a jël texte yi atte bi jàppin jàppin nit ñi comme ay machine waaye ñu fab loi yi niteel ko xam ni nit a ko dax a jóg ci nit nit la loolu tax yàlla dolli ci wal ihsaan di leen rafetal rafetal boobu nag bu ko tuddee mooy ne ni ko kilifa gu mag waxee Sayyid Qutb radiyallahu anhu wax ne dafa mel ne dafa ubbi baabu jéggalante buntub jéggalante buntub yërëmante buntu eh, xajonte nga am akk ci man am sañ-sañu jël ko war naa yóbbu ci yoon nga ne kii jéggal naa ko buntu boobu la ñoo xam ne kon ay nit la ñuy doon waaye duñ doon ay machine ay machine yoo xam ne dangay bës bés bu toog mu jox la lii waaye lu waaye nañ ko niteel saa bu jëgga jéggale jotee ñu jéggale saa bu jëndale jotee ñu jëndale saa bu baale jotee ñu baale loolu mooy tax luwaa yi doon am am maanaam waaye buñ bëggee jàppe nit ñi comme ay machine dafay daal di indi yeneen jafe-jafe kon bu yàlla waxee ne wal ihsaan inna allaha ya'muru bil adli wal ihsaan mooy ne dafa bëgg nit ñi nite di jéggalante ca bañ a foog justice jëfandikoo ko comme gànnaay donte sañ nga ko waaye fi nga ko sañee ba noppi wàcc jéggale foofu la tiyaabay jéggale ëpp kon loolu it euh, mën nañ koo bàyyi xel waaye dafa xam ne tamit doomu aadama ni ko yàlla bindee dafa mën a tooñ doomu aadama dafa mën a tooñ doomu aadama dafa mën a xeeb lim yor te xam même di ci loxoy nit ñi doomu aadama dafa mën a daw ay ay warteefam dafa mën a ëppal ci ay àqam yooyu yëpp nag tax yàlla ne ko na nga maandu tey rafetal muy lu ama am solo loo xamante ni lu kenn ku ne ci ñoom ci tolluwaay bi mu toll war koo bàyyi xel Seydina Abu Bakr radiallahu anhu ba mu nekk président de la république di amirul mu'minin jiite réew mi ñu tàng ko discours bi mu njëkk a def dafa appliqué ci boppam mooy maandu bi justice bi lan la wax bokkoon na ci li waxoon ni da ngeen maa fal waaye gënuma leen bu ma fekkee ne rafetal naa na ngeen ma dimbale jàppale ma su ma jàddee yoon mi jàpp leen ci sama loxo xëcc ma ni ma yoon waa ngi ni yaa ngi jàdd daan ne nag su ngeen ko deful ñun man ak yéen ñun ñëpp xalsat nañoo dund ci fitna wala tashiu faaxishatu fi qawmin qat illa amma ammahum allahu bil bala aw askan bu buñ yàccaaralee di seetaan kenn ku ne di tooñ ku ëpp doole sama morom wan ko yàlla da di mujj wàcce fitna ci seen kaw ñoom ñëpp benn yoon kon bu loolu tax na kenn ku na ci ñun ci wàccuwaayam ci pexeem ci dooleem ci sañ-sañam war naa xeex ak tool ak fu mën a bàyyi ko euh, Seydi Xutb bi dafa wax ne amul benn askan buy développé ci ay ñaaw ñaawteef tooñ ak def lu ñaaw musta développé am réew amul mel réew ci àdduna mu mas a développé ñu ne tooñ ak mooy yàlla ak bon moo ko développé amul bu fa am koom njëkkee du fa mujj bu fa jàng njëkkee du fa mujj Serigne Mbacke Bousso radiyallahu anhu di kilifa ci yoonu murit di borom xam-xam di mufti bi bu bi teeñ tanoor defee di bundaxatal taalibe Serigne Touba yi fii ci bi gii Serigne bu Bousso di ko bind bataaxel bokk na ci li ko wax lettre bu gudd la ni ko nag lii ma lay wax dama la koy digal yàlla rek tax ngir sa njariñ njariñul adduna ak njariñal alaaxira li ma lay taree tamit dawal la lool rek moo tax wax ca wax yu baree bari ba egg ci ne ko nag na nga xam ni am réew mën naa jëm kanam développé donte ñi ko yor gëmuñ yàlla kon développement réew ak amam jàmmam ajuwul ci gëm yàlla kese ay ay règle la yu ñuy respecté réew mi jëm kanam am jàmm développé idi dawlatu إذ الدولة تستقيم مع الكفر ولا تستقيم مع الظلم دائما أبدا musuñoo gis fenn ci àdduna ci kàddoom benn réew bu développé ñu ne tooñ mën a tooñ a ko développé ak luñ mën a woote woo ngëm yàlla buñ ne woon ñun ay jullit lañ te ba noppi dëkk di tooñante ci suñ biir du tax ñu dem fenn duñ seq benn jéego parce que mbir mi ajuwul ci gëm yàlla kese waaye ay sunna sunnal kawniya ay régal yu yàlla teg la ni àdduna nii la tëddee ku ci dox egg fee ku ci jaarul doo egg fenn doonal koo doon gëmal loo mën a gëm kon loolu lu mat a xam la fii sëñ bu sa moomu ci boppam tamit bind na lettre Ngalandou Diouf biñ ko falee son mbubbum mel ne yàlla mooy wax ak Ngalandou ana lisaanul xaq lan la ko wax yow mi nga xam ne tànn nañ la man mi nga xamante ni acte bu ma jël kenn duutu ci dellu ginnaaw amutul appel xam nga suñ réew mi fu mu nekk nii daanaka ñi gën a umpule sax léegi xam nañ appel waaw rek def nañ def nañ appel def nañ nangam def nañ ni mu ne nag man yàlla maa la teg ci barab bi te dogal bu ma jël keneen mënu ci dara maa la teg fii du ne dangaa gën nit ñi waaye kenn nga ci ñoom dogal bii ma jël kum neex na ci sant yàlla kum naqari mer ak mettit mettitu biir xalsat na ko rey ni du kenn mënu ci dal man yàlla man mi jël dogal bi teg tegle ci barab bi maa lay wax ni la na nga ma sant xam ni kenn nga ci say nawle gënoo leen dama la fee teg ngir xool ndax li ma la sant da ko def wala déet ca bul fàtte ni ku wàcce boppam ma yëkkati ko ku yëkkati boppam ma wàcce ko ci luutu jóg ba faawoo Serigne Mbacké Bousso dañ ciy toll ni ko ci mel na yàlla mooy wax ak kilifa gi réew kilifa gi ne ko bul ma wor man mi la teg ca bul wor ak dawlal jumhuriya bul wor sa réew te bu ma wor réew ci yamale ak maandu ci lañ ko tabax bu bëggee dem nay moytandiku tooñ nay moytandiku jëfandikoo doole ci lu dul ci lu dul sañ-sañ nañuy moytandiku ger ger max la ku xam max mën naa dund ci dénk max ko ba yàq ko dénk wu ne ñum nga defe ne am ngaw dénk booy laal ma moño ko réew mu gar le ger réew mu euh, tàllal ay lawtanam réew moomu aw tur moo fay nekk waaye dara nekkul moo tax loolu it nit ñi war nañ koy moytu dafay max la buy daane am réew ci niveau yëpp nag fépp fu ger gane si dëgg ron dëgg munta bokk ak ger benn fauteuil munta nekk kii day toog ka ca des randu wala kii randu ka ca des ñëw toog kon réew mun a ëpp euh, euh, euh, ger rek wala la maandu di gën a néewee sëñ Mbàkke Buso nag daal di koy tëjee wala boog teg ci ñi ko lii ma lay sant nag soo ko defee ma saxal ma dimbale la saxal saw tur ba faaw jox la woyu ëllëg bu rafet soo ko deful nag la yàlla xam doy na lii mbokk yi kenn ku nekk war na koy bàyyi wàll xel kenn ku nekk ci niveau ba nga nekk borom kër ci këram ilimaan ji ci jumaam jàngalekat bi ci kanam ndongaam kilifa gi ci kanam taalibe yi njiitu réew ci ci ci kanam doomu réew yi jëwriñ muy ministre ci kanam ñamu jiite ñëpp kenn ku nekk niveau ba ko yàlla teg kullukum raain wa kullukum mas'ulun an raiyati loolu nañ koy bàyyi xel am na lii nag ñu wax am ku ko tënk ku ñu wax sa aale bii di wax ci loraa ngay tooñ tënk ko daan ne az-zulmu maslabatun li ni'am tooñ dafay fànq xéewal dafay dàq xéewal ci ci pénc tooñ dafay xëcc fitna ci pénc man taala udwaanuhu zaala sultaanuhu ku am kilifteef ba noppi di ko jëfandikoo ci tooñ balaa yàgg nguuram daan wa man kasura zulmuhu wa i'tidaa'uhu qaruba halaakuhu wa fanaahu koo gis mu nuur ci tooñ ni ne àppam moo jege koo gis mu nuur ci nit ñi tëye bàyyi xamal ni àppam soree loolu lu mat a xam la charru naasi man kafala zaluma wa xadala al mazlum ki yées ci nit ñi mooy kii fat kii tooñ ba noppi di jéem a toroxal ki yées ci nit ñi mooy kiy fat ki tooñ tey jéem a toroxal kiñ tooñ koo gis mu di ko def àppam soreetu moo xam àpp nguur la moo xam àpp dund la képp ku nuur ci tooñ te génn te caa génn balaa yàgg àppam la lii boroom xam-xam bu mag moo ko wax kon ku bëgg a gudd fan na mooy tundi ko ak tooñ ku bëgg a gudd fan na mooy tundi ko ak tooñ Serigne Touba nag wax ne ne moom jàmm li koy maye mooy yéene lu baax wax lu baax def lu baax te yàlla tax yéene lu baax wax lu baax def lu baax te yàlla tax kon ku bëgg jàmm ku ne sa jàmmi bopp ak jàmmi ña la jay jàmmi penc mi booleel ñett yooyu ci loolu nag lañuy wax ni kon jàmmi réew mi jàmmi penc mu munta nekk ci lu dul yooyu li ko waral mooy jàmm walla boog maandu dafa nekk jumtukaay bi gën am solo ngir xeex ak tooñaan ci tooñ ci tooñ tooñ pénc bi fi la yàlla diglee ni képp ku koy def féttéerlu di tooñ pénc bi ñu wax wax mu të na ko sot na ngeen ko sot ñaari kuréel yuy xeex ñu àtte leen ci njëkk ak teraanga am ku lànk féttéerlu jàpp ne rek moo ëpp doole nee na yéen ñi ci des na ngeen def ci wàll na ngeen dem ca wàll nga ca des sopp ngir delloo si yàlla ngir delloo si maandu kon maandu mooy tax dignité doomu aadama ak liberté mën a ñoom waaye maandu yi mooy tax kóolte gi diggante doomu aadama yi mën a sax te jëflante bi nga aju ci kóolte te kóolte gi nag bu demee ba amul ci diggante nit ñi rawatina ñuy àtte ak ñañuy war a àtte bu boobaa meneen musiba mooy jur musiba mooy mooy lan mooy ne kenn ku ne day jéem a jël ay matuwaayu boppam danaan kat suñ ma tooñee suñ ma loree man maay perte ndax boo ko yóbboo fa mbaxana doone benn dara du ci kon day daal di jël ay matuwaayu boppam buñ demee ci réew nag ba kenn ku ne di jël matuwaayu boppam bu boobaa mooy musiba wàllu yàlla seen i pénc day tax it kenn du wóolootee dem ci yoon. kon danaan naa fayu mu jeex bu boobaa nag jéggalante ak jëllalante ak baale dafay daal di randu ci biir nit ñëpp dañu mujj di dund ci bi ci des mooy maandu mooy soññu nit ñi ngir ñuy mën a jëfandikoo seen i sañ-sañ seen i liberté ci xalaat ci wax ak ci jëf kenn bañ leen a fàttal ñi leen doo ko fi xalaate doo ko fi waxee doo ko fi jëfe te loolu am na ay réew yoo xamante ne liberté yooyu tënk nañ ko tënk boo xam ne nit ñi léegi kuy waxate sax say mbokk dañaa leen seetal li ngay wax kuñ woo ñu ne woo nañ ko ñu ne du dellu si loolu am réew bu fa tollee mooy musiba naaru laay mi nit ñëpp ñoo ci war a taxu delloo si waat maandu moo tax am réew jëm kanam ndax dafay tax nit ñi ñemee génn ñemee jëf xalaat ñemee wax ñemee jëf suñ leen tënkee ci seeni xel ak seeni cër nag lépp danaañ yàcc bu boobaa réew mi day nasax du ak ñàkk moo naan faax ci réew mi ci dul fi kon ngir tëj bañ a téye lu bari dañu wax rek ni kon ni mën nañoo wax daal ni maandu de mooy keno bi am gën a am solo ngir mën dëgëral jàmm ci ak kaaraange ci am pénc maandu mooy nattuwaay bi gën a fes ci yoreen bu baax ci li ñëpp bokk maandu mooy tax euh, mooy tax koom mi dund koom mi jëm kanam nit ñi am yokkute bu maandu amatut nag bu boobaa pénc mi dafay mujj mel ne àll ba mala yi li ñuy dundee mooy kenn ku nekk ku ëpp sa morom doole rek wan ko loolu nag bu wàllu yaansee ci suñu pénc mooy bu boobaa musiba am na te mooy jëfandikoo doole jëfandikoo daraja jëfandikoo wàccuwaay di ko euh, ci nu la neexee ci biir pénc bi kon euh, ngir euh, delloo kàddu gi daal dañuy wax ni fii suñu réew mi toll jamono jii bu kenn xeeb boppam ci lenn bu kenn xeeb boppam ci lenn bu bu kenn tooñ bu kenn nangu ku ko tooñ bu kenn tooñ te bu kenn nangu ku ko tooñ te bu kenn farle kuy tooñ nañ fexe ba maandu dellu si ci suñu réew su ko defee bu boobaa xéewal yi ñu suñu borom jox ñuy ñaan yàlla mu jig réew mi jig askan jig génération yooyu di ñëw ñu mën koo dund ci anam bu sedd guy ci jàmm ak salaam ndax gis nañ fi ay réew fan yii rek dégg ko réew mu ñuy tudd ni dugal na fi xaalis te réew moom barki dem boo njaay daan dafay fay la woon ab saxaraa te ci réew yi gën a avancé la ni xéewal yi leen yàlla jox dañ koo saytu saytu wen bu baax mooy ne nag bi ñu ngi teg bët ci réew bi ndax yi fi am kenn ku bëgg cee am wàll loolu nag bu jeexee ñu salfaal seen suñu réew ñi ci jiitu ci ñu ko war a aar nag mooy ñi yàlla dégg kàddu yi moo xam kàddu diine la moo xam kàddu àdduna moo xam ñi jën ay dogal la kenn ku nekk ci aqulaay taalaam mu ci mu koy xool ca xam ni balaa yàgg dana tëdd ci bàmmeelam te bu boobaa danañ ko laaj lépp lu mu ci mësoon def maa ngi jégalu bu baax a baax daanaka dama koo taxañ nii rek ngir 30 minutes yi ñu jox ak tamit waxtu bi ak yeneen kàddu yi ci war a toog maa ngi sant bu baax a baax ci fekk gi ak tal gi ak bokk gi di di ñaan yàlla yàlla nangu ñaan yi yàlla may ñu ñu fekk waat ay yoonu yoon ci lépp ànd ak dal ak yu weesu fii ñu toll réew mi toll ba koy nettali suñuy set di dund ci xéewal yu bare bari ci lépp ànd ak jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullah